moom lii ngeen fi gis nii lépp moom moo ko rédigé bind ko traduire ko en anglais ma yónnee ko Amérique bi ko yónnee amerique moo tax matériel bi ñëw matériel bi nag li ngeen gis lépp dafa nekk matériel yoo xam yi boo ko amul doo mën a opérer euh, ni mu waree mm. doo mën a faj kenn directeur moom na seet ay matériel lourd mu jëkkee ko mais dafa jël li nga xamante ne lu am solo la mu ne ma lii buñ ko amee dana dimbali hôpital bi waxuma la mais dana dimbali hôpital bi mais dana yokk aussi recette u hôpital déjà américains yi xam nañu hôpital amul Sakhir Mbaye ndax def naa ni ku jël toll nii def ko ci conteneur 40 pieds andi ko da gën a jàppale hôpital. liggéeyal Sénégal hôpital sous région fii boo ñëwee Mauritanie yaa ngi fi. Malien yaa ngi fi. Gambien yaa ngi fi. Mm-hmm. Sénégal yaa ngi fi. matériel bi ñu indi fi nga xam ne toll na ci deux cent millions xeeb nañ ko directeur mu lay wax ni d'ici la fin de mois bi daañ ci tegaat beneen dix million de francs beneen dix million en liquide jàppale hôpital may wax bon volonté yi Louga yi na nit ñi gën a ñëw jàppale hôpital bi lu waay def ci hôpital bi njàmbur nga ko defal.